salaamaaleykum gars yi papa yi Fambaye laa bëgg a woo waxtaan ak moom tuuti ngeen dégg ko parce que Wally Seck dafa bari noon te Wally nit ku baax la xol bu rafet la yor barki Serigne Babacar Sy déglu leen ma ak moom. salaamaaleykum papa papa da def yaa ngi si jàmm ah papa seetal naa sa interview mais daal li ma la waxoon rek instant bi nii Wally sekk audio yi ma wax yow noonu instant yi jot nañ ci bu soobee yàlla Wally dina fa ñëw moom moom ba mu jógee Amérique ba léegi dafa amul woon jot amul woon temps nekk ci ay affaire mais Wally Seck ku baax la yaa ngi dégg borom xol bu rafet la télé bu la benn télé jaxaseeg Wally Seck wala mu lay wax loo ci moom ngay wax loo xam ne waroo koo wax man mi gisoo papa fa mbay dama cee sonnoon lijjanti ay kayit woo Ibrahima barki Serigne Ba avion rek ci manqué woon lépp Ibra doon na ko lijjanti waaw bu la benn télé jaxaseek fa mbay euh, kii Wally Seck nit ku baax la loolu rek laa bëgg papa yow sama papa nga sama xarit nga télé yi dañoo saytaane dañ lay jaxaseeg waali sek naan la waxal ci lii waali waxal ci lee waali nit ku baax la ku mën a jàppali nit la ku gore la barki Serigne Babacar si man maay wax ak yow dégg nga Baba nañ ci bàyyi xel ku la interview te dina laaj ci waali bul wax maa la ko wax man li ci des lépp dinaa dinaa dinaa dinaa ci liggéey dégg waaw baax na jërëjëf kon ñu déggoo jërëjëf